نجدد mu mel ni kon tey jii fii ci màggalug tuubaa gi di 18 safar ñu koy defee fii nga xam ne nii mooy kër Serigne Modou Kara Sylla moom Cheikh Sylla diwaan moom sëñ ma Paate Sylla waaw fii nag euh, ñu ngi wax ci kanaalu euh, waaw diwaan Sylla TV euh, fii ñu ñu fekk nag mooy bureau fédération bi nga xam ne nii ñu ngi ko taxawal depuis 2015 tuddee ko fédération des daayira waa kër Serigne moodu Kara Sylla te édition màggalu Daaru Musi daaw sëriñ Modou Kara Sylla ci boppam daal di koy tuddee fédération des daayira noppal Cheikh Modou Kara Sylla la waral loolu itam. dañoo dem ba jamono joo xam ne nii wax dëgg yàlla lépp li nga xam ne nii euh, sëriñ bi moo ci daan sonn daan ci defi itte mbokku taalibe yi ñoo dajaloo daal di def benn kuréel euh, nga xam ne nii moo lëkkale euh, mbooloom sëriñ bi moo lëkkale daayira yi yi nekk ci réew mi ak bitim réew loolu la ñuy tuddee fédération des daayira waa kër Sëriñ Modou Kara Sylla diwaanu kër Ngalgo mooy adjoint Baye Bolle Ndiaye président mi nga xam ne nii mooy président commission finance mooy adjoint euh, màggal gu jot nag ñun nii lañ ko baaxoo defee toog ci taabal ji mbokk taalibe duñ ci fekk di joxe seen addiya euh, di joxe seenu sas euh, daayira yi kon Serigne Modou Kara mu mel ni kon loolu moom la ñuy moom la ñuy ubbee waxtaan wi waaw xam naa di xaar ay laaj yoo xam ne nii Cheikh Modou Kara dina ko rotal

Ah, magal gogo kon mu melni 1 million 859 800 francs euh daru mufti 2016 ñu 2 720 750 magaluk daru 2017 ñi def 2 397 400 francs dessalon 800 000 francs ko ne xamna euh, mag keur diwan euh dara lii ciment lañ ko jëndee woon fondation ko euh, daal di woote daayira yi ku nekk def ci wàllam ba fii ñuy waxee ak yéen euh, ca diwaan sëriñ bi am na fa terrasse boo xam ne noppi la boo xam ne nii euh, fédération bi yëngu na ci bu baax a baax. màggal ak Daaru Musti 2018 ñu def ci million trois cent millions 345 mille 200 francs desaloon ci xaalis 264 mille 500 ñu def ko ci enveloppe jébbal ko sëriñ bi bu ñu ñëwee ci màggali Touba yi. Euh, édition 2015, euh, 795 750 francs. Magal octobre 2016, nous avons 930 250 francs. Magal octobre 2017, nous avons 1 million 85 300 francs. Magal octobre 2018, nous 1 million 657 875. mooy màggalug euh, diwaan màggalug diwaan nag wax dëgg yàlla du fédération bi daawul def lépp waaye nag euh, daan nañ ci participer euh, du sax lépp la ñu tënk waaye nag li nga xam ne nii tënk nañ ko mooy màggalug diwaan 2017 def nañ ci 376 mille 500 francs màggalug diwaan 2018 def nañ ca 431 mille francs màggalug diwaan édition 2019 Euh, ñu def ci un million cinq cent dix mille six cent francs loolu euh, boo ko boolee daanaka ci xayma fédération bi depuis 2015 bi mu juddoo ak léegi def nañ ci liggéey ci wàllu finance euh, vingt deux millions trois cent soixante six mille six cent kon loolu mooy li nga xam ne nii ci wàllu finance ci li nga xam ne nii tënk nañ ko ci kayit loolu mooy li nga xam ne nii moom la fédération des daayira noppal Cheikh Modou Kara Sylla Euh, yëngoogun ci euh, ci wàllu finance. waaye nag di fàttali ne comme tey jii dañu nekk ci màggal gi màggal ak Touba gii ñu nekk vingt deux millions trois cent soixante six mille cent francs yooyu ma wax màggal gii bokkagu ci nga xam ne budgétisé nañ ko ba pare bu ñu màggalee ba pare danañ def euh, bilan bi danañ woon ni ñu ko baaxoo defee jëwriñu daayira yëpp ñu def bilan màggal gi wax leen naka la demee ñu doog a mën a jël somme boobu daal ko ciy ajouté waaye na jàpp ne. Euh, budgétisé woon nan lu envoisiné les trois millions nga xam ne kon buñ ci dugalee màggal gii mën nañ ne danañ dugg vingt cinq millions yoo xam ne euh, lépp sëriñ moo ko daan defal boppam kon mu mel ni képp koo xam ne nii noppal sëriñ bi euh, yitteel na la lii moom joxe na ci ndigalul boppam ne na ci ñëpp bokk waaw jërëjëf Kara mu yaatal gi moom boobu ba léegi ñu ngi ci sant bu baax a baax nag wa sit bi di euh, diwan si la euh, Cheikh Modou Kara gam ci ak Serigne ma samba Bey wax deug yalla di ci bay war wo xamne ku ci YouTube rek vraiment fek len fa euh, am na nak ay jëwriñu communication ndax biñu koy tambali def aw sas par daire dañ dan def magaluk ak magaluk màggal ak Daaru Musti bi ko tambali goor day def 6000 jigen def 3000 magaluk ak diwaan def 2000 jigen def 1000 francs magal ak Touba góor def 3000 jigen def 2000 bi démé nak ba samp lo y ni ci ay 45 daïra nga xamné ni daïra daayira biir réew mi ci lañu bok. daïra bitim réew yi ci lu Gambie lu Guinée euh, lu euh, Côte d'Ivoire lu melni Italie lu melni France ak fenen ak fenen wax ñëpp bi ñu demee daal ba am li mu daayira boo xam ne nii xaw naa takku ci la ñu tàmbali nag bu événement jube ñu daal di daje daal di budgétiser ne nangam warees na koo soxla ci màggal gi ñu daal di xool loolee daal di koy séddale euh, daayira yi daayira bu nekk ñu xool la mu àttan ñu teg ko ko waaye teewut nag nan doxee bu njëkk ba léegi di wëy ndax am na mbokku taalibe yoo xam ne nii ba léegi euh, message bi xëy na àggut ci ñoom ndax fa ñu nekk sori Euh, am na ci tamit ñoo dëkk yoo xam ne nii ba léegi caravane yi ñuy def di def euh, di taxawal ay daayira dafa àggagut loolu moo tax mbokk taalibe yi nga xam ne nii nag euh, àggaguñu fa ak ñi nga xam ne dañ koy doog a dégg ku ci ñëw màggal day agsi fii ci taabalul bi ñu daal di lay leeralal ni nga xam ne mooy doxin wi bu dee fa nga nekk ab daayira am na fa ñu fexe nga jokkoo ak jëwrinu daayira ba bu fekkee fa ngeen nekk daayira amu fa ñu wax leen teg yi nga xam ne nii kenn ku nekk noonu lay teg loolu wax dëgg yàlla saa bu ñu daje fii ci taabal ji liggéey bu am solo lañ ciy def waaye nag ñi ngi ñaan mbokk taalib yëpp ñi nga xam ne nii ñi ngi ci dëkk yoo xam ne nii mbooloo mu daayira am na fa nañu ko wax ndax am nañ wax dëgg yàlla kuréel boo xam ne mooy wër di dem ci dëkk yi di fa samp daayira euh, loolu daal mooy ni nga xam ne nii moom la ñuy doxale kon mu mel ni ñaari wàll yëpp mi ngi wëy fi am daayira yuy dox dañuy sas daayira ba fi nga xam ne nii mbooloo nga fa waaye tënkoogun cib daayira kenn ku nekk day joxe aw sasam kon euh, kon euh, rotaluñ ko ñu ngi woo suñu mbokk yëpp di leen xamal na leen kër sëriñ bi moom lépp loo xam ne nii am na fi jarul ñu ciy xaar kenn ñun mbokk taalibe yi ñoo koy def népp noo xam ne ni bëgg nañ kër sëriñ bi mel ni ñun ñoo koy defal suñu bopp ndax sëriñ bi moom euh, moom de kilifaam gërëm na ko ndax luñ ko jox dana ca boole lu ko ëpp fuuf yot kilifa lépp mën nañ koo seede kon ñun la des li nga xam ne ni bëgg nañ suñ kër sëriñ bii mel ni ñu waxtaane ko fexe ba soppi ko ndax fédération bi kat yitteem du rek màggal yii ñu di ko taxawee waaye bëgg nañ fépp fu daaree sëñ bi nekk fépp fu kër sëriñ bi nekk bépp yëngu boo xam ne nii dañ koy sas sëriñ bi mu di jóg fédération bi di ko defal boppam bëgg nañ dem ba nga xam ne nii dépense bi am ci kër sëriñ bi sëriñ bi du xam nu muy demee lépp taalibe yi ñoo koy def te loolu yaakaar naa sëñ bi am na mbooloo moo xam ne su booloo gi amee ànd am organisation bu mat am danañ dem ba àgg ci loolu kon ñuy ñaanal képp koo xam ne nii dugal nga ci saw ñaq la ca des yàlla bu mu jar ordonnance képp koo xam ne nii tam dugaloo ci saw ñaq di doog a jot ci xabaar bi saa buñ ca àggatee suñ borom yàlla na la euh, tawféexe ba la cay saw sas nga mën ko di ñaanal mbokk yëpp yàlla suñ borom doole leen xéewal ndax ñoom ñëpp xam nañ seen yéene waaye nag léeg-léeg jamono mooy toll foo xam ne dañuy doxe yéene rek waaye xam nañ seen tolluwaay ci kër gi kon daal mbokk yi loolu lañ bëggoon wax ci màggal gi di ñaanal ñëpp lépp loo xam ne nii ay tuyaaba yu tukkee ci màggal gi yàlla bu leen ci kenn ëppale di ñaanalaat suruñ sang bi Cheikh Modou Kara Sylla yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba lépp loo xam ne nii naal na koo liggéeyal sëñ ma paate Sylla mu àggale ko ci sagoom te ànd ko bokk taalibe yi kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngeen jëf يجدد سنته فلا وإن أحمد للمرء